nañ julli boo defee lee teg ci la ci war a topp doo mën ne allahu akbar yàgg nga door a tàmbali jàng fatiha nga jàng fatiha ak saar ba mu jeex ba yàgg mu neex la nga door a jàll rukkoo léegi day teg teg ci la ci topp ñu sosaloo bañ a sore dafa wàññiwaale boobu ci farata yi faslun wa sunanu salaatu sunay julli tamaaniyata xashara fukk laa juróom-ñett sama julli fukk laa juróom-ñett al ula wu jëkk ba xiraatu surat mooy jàng aw saar aw ma wala nga xam ne yàqoomu dina taxaw maqaamaha ci taxawaayu saar baxdal fatiha ci gannaaw fatiha fi subhi ci suba wal jumuhati ak julug ajuma wal wala yooyu ñi ak ñaar rakk yi njëkk min xayrihima ci kulli ñoom ñaar min faraidi an yaani ci farat ay jëmm yi waaw nee jàng aw saar mbaa lu wecc aw saar lu wecc saar nag jàng aw saar mbaa lu wecc saar lu wecc aw mooy benn laay sax nee nañu boo ko tegee ci faatiha ji mu doy loolu sunna la ci boo dee julli julli farata moo xam day suba mbaa tisbaar mbaa kenn ci yooyu ak bu dee ay ajuma waaye ñaar ràkk njëkk ñi rek ñoo am saar wi boo weesoo ñaar ràkk njëkk ñi bu dee timis ba ci mujj wala bu dee ci des ñaar yi ci mujj amuñu saar faatiha kese lañu am attaaniyatu ñaareel bi alqiyaamu mooy taxawaay ba li daalika ñeel loolee jëmmi saar bi ne nga jàng ko sunna la taxawaay ba nga taxaw jàng saaroo itam sunna la attaalisatu ñetteel bi aljahru mooy biral fil wala yow nit ñaar ak njëkk mel maxdi bi ci timis wala hichaay ak gee wa jumlati subhi ak mboolem suba wa shafi ak shafa wala witli ak wetar wal jumati ak ajuma wal xiidayn ak yaari xiid yi wa leyli ak naafilay guddi wal nee na biral mooy wax ca kaw ba lu néew néew nga di ko dégg ci sa bopp loolu mooy biral moom na nee na sunna la ci ñaaraak njëkk timis walla ñaaraak njëkk ci gee wala ñaaraak suba yëpp li mu ci boole nag muy safa wetar moom dañoo sopp rek nga biral leen waaye seen biral aggul ci sunna ndax ñoom duñu farata wetar moo gën a màgg te sunna rek la aggul ci farata safa dañ ko sopp kon yooyu nga biral leen sopp nañ ko rek ajjuma nag moom nga biral ko sunna la ba tey korite ak tabaski ak mboolem naafile ngeen naafile ci guddi ak julli mbaaw yëpp moom dañoo sopp rek nga biral leen waaye boo leen biral doon nga bàyyi lu ñu sopp rek arraabixatu ñeenteel bi al israaru mooy yelu fi ma xadda zalika ci lu dul loolee ah nee na bokk na ci suñuy julli boo weesoo yi mu loo xam ne dañ ci des ci biral lu bukk te rek boo ko dee julli nga wax ko ci suuf loola mooy sunna wa sirru yàllu nag maa mooy la nga xam ne laa yusmaaw def ko dégg bi uddunin ci nopp wal jëxru biral moo di ab safaanam boo déggee ñu wax njàngum yàllu mooy loo xam ne sabab sax say nopp du ko dégg bu ñu biral mooy lu gàtt gàtt yow nga di ko dégg tam bii xun li ak yeete la loo xara adoon te jàngoon na siran ci yàllu fii ma xalil jëxëri ci béréb bu biral aw jëxëran mbaa mu jàng ci biral fii ma xalil sirri ci béréb bu yàllu am doon ci tey aw sëxwan wala ci njumte al ayata benn laaya rek wal ayata yi ak ñaari laaya laa shay dara alay di ko ca war nee na fu ñu la digalan nga yelu fa ni ki boo julli tisbaar yow nga tàmbali faa wax ca kaw boo wax fa benn laaya wala ñaar maanaam fu ñu la digalan nga wax ca suuf ni ki nga fàtte ko nag ba tàmbali wax ca kaw waaye weesoo bu benn laaya wala ñaar wala fi ñu digaloon nga biral fa nit ki timis yow nga tàmbali fa wax ca suuf waaye nag ba tey weesoo bu benn laay wala ñaar daal di koy fàttali ko loolu nee na dara nekku ca jëgal nañ la ko mën ngaa jàll rek sam njàng jàng na nga war a jàngi te du aajow sujjóot du aajow dara ama ida qara ndaal ndem jàng na ak saral ëpp min aayatee ni ci yaari laaya wata dakkara te mu fàttaliku xabla wadi yaddayi ci njëkk teg yaari loxoom alaaru ku ba tey ci ñaari bati aada kon mu baamu umal quraan fatiha ja wa surata ak saar wa nee na boo xasee weesu laaya ci kaw njuumte ñu digal leen na wax ci suuf ngay wax ci kaw mbaa ñu wax ne wax ci kaw yow ngay wax ci suuf kon nee na saa yoo ko fàttalikoo da ngay baamu la nga jàngu lépp jàngee ko na ko war a jànge bu dee yàllu nga yàllu bu dee bilal nga bilal ba noppi na nga sujjóot ba xaddi salaam ndax loolu ab yokk lay doon ndax la nga jàngoon na koo jàngaat waaye na ci kaw rek ba nga koy fàttaliku booba jàpp goo ci say woom maanaam sëggagoo daal boo sëggagoo moom ngay la nga jàngoon wax ko ni nga ko war a waxee te su joot nag baxda salaam wa in tadakara dem fàttaliku na baxda wad yadayhi ci gannaaw teg yaari loxoom àla rukbatayhi ñaari bati woomam laayar ji kon du dellu ngir njàng ma li na xaq dar rek xaat ngir naka fasub rakk hinda bunil xaasim yi fa ibnul xaasim bu rafet si nekk na ci yëkkati boobu ba mën a rukkoo tukkee ci illaa fi masaila dara ay masala min haa yoo xam ne bokk na ca haadihi mi le fa inna xaq daxaa naka ak fasam bi wadda yedda yi nekk na ci teg yaari loxoom alaa rukk ba daxi ñaari bati woomam wax ne nag bu fekkee xasu nga jàpp ci say woom moom door a fàttaliku ne niñ la jàngaloo woon jànge na ñu laa waxoon yellu nga biral baa ñu laa waxoon biral nga yellu waaye xasu nga sëgg jeex na danga far wéy rek benn yoon te jàpp ne bu dee biral moo fa war a nekk nga def fa yellu kon na ngaa wàññi nga sujjoot xam ne salaam bu fekkee yaroo fa war a nekk nga def fa biral kon nga am ni ko yokk bu ko defee nga sujjoot ba xam ne salaam ni koy ko ci téere yi nga weesu ni ki jawhar ndax maanaam dañ ne ab ràkk balaa fasu nga xam loo weesu doo ca mën deltu gannaaw da ngay rukkoo ba siggi waaye daa am ay benn benn masala yoo xam ne moom boo xasi sëgg rek jàpp ne fasu na duñu xaar ba nga siggi booy xas sëgg rek jàpp ne ràkk boo fasu na biir ci lañ ko boo fàttee yàlla mbaa biral boo sëgg boobu ci la bokk boo xas sëgg rek rakka boobu façon doo ko mën a dabal tamit léegi xaala wax na baaduhum lenn ci ñoom law taraka loon te bàyyi woon na aljaxra biral xaamidan mbir mi aju tay ko fa xiila waxees na ne yastaxfiru day jéglu allah yàlla taxalaa kawe na wala cheyte bi dara alayhi di ko war wa qiila waxees na it ne tabutulu dana yàqu salaatuhu julleem li anna haza ngir naka lii na haza ngir naka lii minat tahawuni mi ngi bokk ci sabantal bi sunani ci sunna ya kama yu tahawunu niki defi sabantale bil faridati ci farata bil faridati ci farata man daa wax ne bu fekkee dañ laa digalal nga nga biral mbaa yelu mbaa beneen sunnaa ci yem daa wax noonu waaye sunna yëpp yem sunna boo xam ne yaa jékki-jékki tey ko rek noonu fàttewoo ko defoo dara juumoo yaa ko tey baari bàyyi ko am ñu ne sujjóot du ca war ndax ndegam yaa ko tey juumoo su jot waru ca yow rek sa borom am ñu jul julli ga yàqu ndax sunna la waaye boo ko boo ko bàyyee ngir woyofal ko nga woyofal julli gi te julli boo ko mu war a yàqu wax ji gën a wër mooy euh, julli ga day yàqu mel na ne ndax bàyyi sunna wërta tax julli yàqu alxaamisat juróomeel ba kullu takbirat mooy bépp kabar sunnatu sunna la maa xaddaa takbir ihdaal bi ndare kabaru xarmal maanaam mboolem allah ku yi ñu wax yëpp ci julli gi sunna la ba mu des bi ngay njëkk a wax bi ngay njëkk a wax moom farata la leesul nga ko ci gannaaw assaadisatu juróom-benneel bi illa taasifati ba juróom-ñeenteel bi xam nga wax na juróom daa bëgg a wax na juróom-benn juróom-ñaar juróom-ñeent ñu sësaloo benn yoon al su mooy jataay ba al awal ba eju jëkk fii maa ci lépp loo xam ne fii nekk na nekk na ci moom juloo saani ñaari jataay gépp julli gu am ñaari taay rek jataayu taaya ja ak ñaari ya ku ci nekk day nekk sunna kon xam nga boo wàññee ñaari jataay wàññi ñaari taay loolu ñeent lay doon ñeent nag bokk boolu juróom bu daal juróom-ñeent loolu nga tax mu wàññi ko wàññi bu gaaw boobu rek bu dee am benn taay mel ni suba xam nga suba bu fekkee rawuñu la ci benn taay lay am waaw ah, suba baa na kon benn jataay fay nekk di sunna ak benn taaye mu yaari sunna wat moo tax mu teg ci wat tashahud ak taaye ja ak al awal ji aji jëkk wat taani ak ju ñaareel ja bu laf si ta nga defee ko baat ba alwaarid ba aji rot fii ci moom waaw maanaam saa yoo xam ne julli gi am na yaari taaye rekk taaye bu ci nekk akub jataayam sunna la léegi mu ne taaye ji dañ koy defee baat bi nga xam ne moo dikk tëwër bàyyi ci téeri addis yi ñun nag bi nga xam ne moom lañ ci topp ci fiqhu Malik mooy bi nga xam ne moom lañ nettalee ci Omar ibnul Xattaab radiyallahu taala anhu mu jàngalan ko nit ñi ca kaw minbar ba dañ cee wuute am nañu wax ne nga defe ko baat boobu baatu taay boo xam ne dafa dikk bàyyi ci hadis mooy sunna am na ne déedéet nga defe ko baat boobu lu ñu sopp rek la waaye boo defoon taay ci yeneen baat yu bokk te yooyu itam du tee sunna si am kon foofu am na wuute waaye daal moom taay bi ni taaya moom moo nekk nii peñ ñettalee ko ci Omar radiyallahu taala anhu baat yi nag waxoo moom taaya mooy lii ni lañu taaya ñu wax attaxiyaatu mboolem baat yi tegtale ngóor lillaahi aji sax la ñeel yàlla azzakiyaatu mboolem jëf yu sell yi lillaahi aji la ñeel yàlla at tayibaatu mboolem baat yu teey yi assalawaatu ak mboolem julli yi lillaahi aji yey la yàlla assalaamu jàmm aleyka yàlla nekk ci yow ayyuhan nabiyyu yow yonante bi man na it ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah ak yërmande yàlla wa barakaatu ak i barke asalaamu jàmm yàlla xale naa yàlla nekk ci nun waxalaa ibadillah ak jàmm yàlla yi asaalihina ñe daway baax ashhadu naa seere ne an naka lay mbir laa ilaa amul benn buur illallahu mbir yàlla wax dafa moom rek laa sharik amul jenn aji bokkaal la ñeel ko wa ashhadu maa ngi ne anna muhammad naka muhammad abduhu ab jaamam la wa rasuluhu te eberonteem loolu mooy taaye wax ne mboolem bàyyi teg li nguur ak màgg yàllaa ko jagoo mboolem jëf yu sell yi yàllaa ko yeyoo ñu war ko ko jëfal baat yu tey yi di ki wax yeeg jëf yu rafet yi moo ko yeyoo mu ñu ko roox mu jëm ci moom te bu ñu ko waxee moo koy nangu yóbbu fa boppam julli yi moom ñu ko war a defal loolu dellu ci yàlla nga ne yorante bi maa ngi lay nuyu yàlla yàlla dolli la jàmm ak yërmande barke mu it yàlla nañu yàlla dolli jàmm jooju ak mboolem jaam yàlla yu baax yëpp yeesalaat nag pas-pasu lislaam mooy seere ne yàlla rek mooy buur Muhammad dina lu mu mooy jëmmitaay ji ci dolliwaat mu julli ci yonante yooyu moom ci kanam alxaasiratu aji fukkeel ja bi nga xam ne mooy fukkeel ba asalaatu moo di julli ala nabi ci yonante ba nga xam ne mooy ji a salmale nga ci yonante sunna la wala ngaa salmal boo jullee ci moom na mu baax waaye am na boo xam ne soo ko mokkalee bi mu tuddee asalaatu al ibrahimiyatu moom lay bëgg a wax daa bari ay anam yu ñu koy waxe ne waaye woo ci mokkal rek benn la fekkee jàng nga risaala te mokkaloon booba mën ngaa doyloo ba nga boo jàngee bii te mokkal bii tam baax na boo jullee bi neneen tam ba tey baax na <coughs> waxiya moom na moo di allahumma yow buur bi salli yàlla na nga dool tedd nga ala muhammadin ci muhammad waxala ali ah, muhammad ak ci muhammad kama sallayta ni nga terale woon ala ibrahima ci ibrahim waxala ali ibrahim ak ci ñooñ ibrahim wa baarik yàlla barke ala ci muhammad waxala ali muhammad ak ci ñooñ muhammad kama baarakta ni nga barkeele ci ibrahim waxala ali ibrahim ak ci ñooñ fil aalamina ci mbindéef yi innaka yow xamidun ko ñu sant nga majidu noonu la ñu jullee ci yonante bi mbaa ne leen noo ko defee rek baax na alhaadiyata xasharata fukkeel beeg benn xawlu sami allahu liman xamidahu moo di wax sami allahu liman xamidah lil imaam yi ñeel ilimaan wala paddi ak kenn boo dee jugeew dong boo siggee ci rukoo bi sunna la nga wax sami allahu liman xamidah boo jiite itam boo siggee ci rukoo ba sunna la nga wax sami soo dee maamunu ñu sopp rek nga wax allahumma rabbana walakal hamdu gannaaw ba nga léegee ilimaan wax sami allahu liman hamida ak taaniyata xasharata fukkeel beeg ñaareel wa mooy delloo sëlmal xalal imaam yi ci ilimaan ba war raddu ak delloo benn sëlmal xalaa mën ci ka nga xam ne xalaa wisaari ki nekk na ci ab càmmoñam bu fekkee am na ko la doon jiite ni ngeen toogee di julli am na ko la féete càmmoñ boole ci te am na julli ga lu matub rakka kon am na ñaari sëlmal yoo xam ne sunu la nga delloo ko benn bi ci sa ilmaan benn bi ci waaye yooyu da ko wax ci suuf sëlmal yow sëlmal bi ngay jëkk a wax rek mu farata bi rek moom nañ bëgg sunna la nga wax ko ci kaw dina ko wax léegi waaye ñaar bi ngay delloo sa ilimaan mbaa ci sa càmmoñ moom da koy wax rek ndànk arraabi xata xasharata fukkeel benn ñeenteel al jahru mooy biral bi taslimati taxalili ci salmalu yooyu ba faqat dong sëlmal bi nga xam ne ci nga yeewu ko julli gi mooy bi nga xam ne moom nga njëkk wax muy farata boobu moom nee na nga yëkkati ko biral ko sunna la alxaamisata asharata fukkeel beeg juróomeel al insaatu moo di xerawlu wala nga ne mooy noppi li wala nga ne déglu lil imaam ñal ilimaan ba fii maa la nga xam ne yejj xaru dana biral fii ci moom bokk na ci sunna su sa bu fekkee day biral doon sax da ngaa sori ba déggoo ko mbaa da ngaa tax waaye xam ne ne ci biral la tool rek yow nga def pat déglu te bañ wax dara bu dee yàlla nag moom ñu sopp ngay wax ci suuf yooyu itam ndax sama xel bañ a nekk ci leneen as-saadisata asharata fukkeel beeg juróom benneel as mooy satir lil imaam ñal imaan wala fas ak kenn ku julli nee na sàkk satir satir mooy li ngay samp fi sa kanam boo ragalee ku jaar fi sa kanam waxan nañ ci aljawharu nafis ñi nga xam ni mooy sart yi na mu boo dee julli yow dong ragal ko romb fi sa kanam sunna la nga wut ko boo dee jiite itam noonu su fekkee da am ku lay jiite nag moom ku jiite yow doy na la satir moom ngay jàpp mooy sa satir waaye sama dana bàkkaaru almaaru aj romb bayna yadayil musalli ci diggante yaari loxo yi aju julli bi ne diggante yaari loxo yi aji julli mooy ci kanamam rek idaa kaana dem nekk na loxo di ko ñeel man dooxatun ab yaatu yaatu ab yaatu yaatu mooy fenn foo mën a aw ñu bu kenn dee julli nga romb ci kanamam te fekk na am nga fenn foo mën aw mu nekkoon na nga am bàkkaar ca loola moom itam bu fekkee mën naa jullee feneen teew fa nga romb dong yow fa nga mën a romb amoon feneen kon moom mooy am bàkkaar moom ma dem di ko jullee foofa léeg-léeg nag ngeen bokk bàkkaar moom pam jullee mënoon naa jullee feneen yow itam ma a di ko romb fa danga def waaye mënoon ngaa romb feneen assaabihata juróom ñaareel assaidu mooy aji dolli ko ca xalaamaa ci nga xam ne yasam dana yaatal wala dawla dana xajoo assalaama salmal ba mënal juloo si ci jataay ba ak taani bay aji ñaareel buñ nee jotaayu ñaareel ba mooy taaya ja nga nar a sëlmal rek waxoon ne la jëmmi taaya ja sunna la ab jataay sunna la su ko defee julli ngay ci yonante bi nag sunna la ab jotaay bi itam sunna la kon moom ngay wàññiwaale foofu kon sooy ba wàññi ko foofu jàpp ne jotaay bi julli ci yonante bi ndegam julli ci yonante bi sunna la ab jotaay bi sunna la su ko defee kon ñu fukk juróom ñaareel ñaan bala ngaa sëlmal moom dañ koo sopp rek jotaay ba ngay ñaan itam kon lu ñu sopp lay doon asalaamaaleykum ji moom day farata wax nga ci làmmiñ kon ab jotaay bi tam day nekk farata ab taaminata xasharata fukkeel beeg juróom-ñetteel az-zaaidu mooy aju dolliku xalaa miqdaari tumaninati ci kemab dal ba dañoo waxoon ne foo ci julli gi nga ne tekk ba say cër dal farata la gannaaw ba nga defee farata ji mu ne tekk nag loo ci dolliwaat gannaaw ba loolu sunna la faslun li beneen dog la wa mustahabaatu salaati yaa ñu sopp ci julli taw si yuddu danañu ëpp ala talaasina ci fanweer fadilatan ci ay ngëneel yi ñu sopp ci julli nga xam ne boo sàmmanteeg moom sa tuyaaba yokku waaye boo ko deful tam dara du ja nekk yooyu dañoo bari ëpp na fanweer mu wax ci ay benn benn al ula ba ci jëkk qiraatul ma'muumi mooy jàngug maamoom maxal imaam yi ànd ak ilimaan fi sirriyati ci julli yelu bu sa ilimaan day wax ci suuf daa sopp yooyu itam ngay wax ci suuf ndax sam xel bañ a nekk ci leneen ak taaniyatu ñaareel bi raxful yadayni mooy yëkkat ñaari loxo ya xinda shuroox yi fa tàmbali ga fii takbiratul ihraam yi ci kàbbaru armal ba faqat dong maanaam booy tàmbalee wax allahu akbar bu njëkk ci julli gi muy kàbbaru armal nga boole ci yëkkatiwaale say loxo ba mu tolloog say mbagg loolu moom itam bokk na ci ngëneel yi nga tax mu ne bu xaas dana tolloole bii maa ci ñoom ñaar man ki bay ñaari mbaggam ya xaa imateen mbir mu aju taxaw nga yëkkat loxo yi wana bañ a bank baaraam su ko defee nag nga wax allah akbar te wàcce loxo yi ndànk dañu bañ nga wàcce ko wàcce bu am doole mel ni kon dangaa ñëwee boobu nga taxaw ci kanamam wa tatwilul xiraati ak guddal njàng ma fi subhi ci suba wa dóori ak tisbaar laakin waaye nag fi subhi ci suba ak toolu mooy gën a gudd bokk na ci ngëneelu julli boo dee julli suba mbaa tisbaar saar yi ngay jàng bokk ci guddi mu fassal yi guddi mu fassal yi nag moo tàmbalee xujuraat ñëw ba ci xabasa benn saar ci saar yooyu bu fekkee yow dong la te nga sawar mbaa ñi nga ànd ñëpp xam nga ni sawar nañ ca nga def noonu fekkee nag mbooloo xëy na yitte yu bare wérade yooyu nag nga jàng ci gàtt yi rek tax wa taqsiruha boole na ci ne la bu fekkee mën nga bu suba mënee gën a gudd moo gën maanaam suba nga gën a yàggal rakkay suba ci njàng ma waaw moo gën hmm, teew na yaar yëpp gudd suba ak tisbaar waaye nag suba gën a guddule la bëgg wax wa taqsiruha ak gàttal njàng ma fil xasri ci takkusaan wala maxribi ak timis boo dee julli takkusaan ba timis dañoo sopp nga jàng ci saar yu saar yu gàtt moo tàmbalee suratul ba ci suratul naas diggante boobu lañ jàpp saar yu gàtt yi jàng ci yooyu tàmm nañ ko wa tawassutuha ak diggu doomuk njàng ma fil xishaa yi ci gee bu dee gee ñu sopp nga jàng ci yu digg doomu ci mu fassal yi loolu nag moo tàmbalee xabasa ma nga waxoon ci ma nga waxi guddee da nga ne ma foofu la yem si la dalee sa nag ba ci soratu leyli wala leyli ida yaxsha jooju nga xam ne moo sës ci duha foofu la yu dëgg doo muy yem wa taqsiru rakxati ak gàttal ràkk ba ak thaniyati ba aj ñaareel xanil ula walis bu njëkk ba bu ñu sañoon ba tey ràkkam ñaareel bi bu njëkk bi koy gën a yàgg ni ngay nga yàggee ci ràkk bu njëkk bi mooy gën a ma njàng ma ci njàng ma lay doon mbaa ca na nga teyloo moom daal bu ñu sañoon rek nga fexe ba yàggee ca rakk bu njëkk ba ca doo taxawee doo ko ràggee doo ko yàggee ci rakkam ñaareel ba doon sax ci teyum njàng ma la itam moom baax na wa taqsirul juloosi ak gàttal jataay ba al awali ba aju jëkk xani saani walis aji ñaareel ja ba tey nee na sopp nañ jataay bi nga xam ne ci ngay sëlmale mu gën a yàgg jataay ba nga xam ne mooy taayu bu digg nga xam ne doo ca sëlmal jotaay bi nga xam ne ci ngay sëlmale wala moom julli ci bu ñaareel bi xam ne ci ngay julli ci yonante bi ci ngay ñaan moo tax ñu bëgg mu gën a yàgg jotaay bi nga xam ne mooy taayub digg na ko mujj bi gën a yàgg wa qawlu rabbana wa lakal hamdu ak wax rabbana wa lakal hamdu lil ma'muum ñeel maamoom inda qawli imaam liman hamidah su ilimaan ne samiha liman hamidah ñu sopp yow mi maam nga wax allahumma rabbana wa lakal mbaa nga ne rabbana walakal hamdu dañ cee boole allahumma wali fas di am ñeel kenn bax dama yaquluha ci gannaaw ba mu ko waxee moom samiha allahu liman hamida bu dee yow dong ba tey ganaar boo siggee ci rukkoo boo wax samiha allahu liman hamida dañuy sopp nga tegaat ca allahumma rabbana walakal hamdu door a sëgg sujjoot nga xam ne yaar yëpp ngay boole bu dee yow dong yaar yëpp ngay wax wa tasbihu sopp nañu sabaal fi rukkoo ci rukkoo ba wa sujjoot ak sujjoot ba sopp boo rukkoo wala boo sujjóot nga sàbbaal sa borom min nan ca ca bu dee ci rukkoo ba subhaana rabbiyal azimi wa bihamdi yoon yu teey min nan ca bu dee sujjóot ba subhaana rabbiyal a'la ba nga caa ñaan ni allahumma xfir lii dañoo sopp sax boo dee sujjóot moom nga ñaan fa ndax yonente bi nee na woon bu ngeen dee sujjóot na ngeen ci ñaan ndax yey na yàlla na nga seenu ñaan ci yooyu jamono watta amiin ak wax amiin siran ci yalu waxuwa moom nag xawlu amiin moo di wax amiin ba xadal falaax yi ci gannaaw noppi mënal faatiha ci faatiha nee na gannaaw boo xam ne wax na wala daaliin bu dee moom dong moom mooy julli daañu sopp mu wax amiin mhm. bu fekkee ne itam ilimaan ji koy jiite dégg na ilimaan ji wax wala daalin daañu sopp moom itam mu wax amiin moom maamu mi te wax ko ci suuf ilimaan tam bu dee yelu du wax wala daalin dana wax amin waaye bu dee biral nag moom ci fiqu maali moom taamuñ ko yenn ngir yi nag moom daañu koy def waaye bu dee fiqu maali moom xasee ba jiite tey biral doo rek ñu ngi àndal wax ko moo tax mu ne bil madd ci bijj ga maa taxfiif ànd wayfal ga moom dane bismillahi tur yàlla taxalaa kawe na loolu noonu woote noonam nga nodd moomatum lu ñu dàmm la maan lu ñu maas la maas ak lonk bu dee ko jàng na ko dana xam dàmm xalal ni daayu ci woote ak taqrir nattale ba mooy yaa aminu yow yàlla istajib yàlla na nga nangu duha ana sama ñaan loolu nag moom dëppoo wuñ ceeg moom daa wax ne baatu amin tur yàlla la mel na kon boo koy jàng yaa aminu moo doon cosaan ñu maas noonu gi maas ko lonk waaye ñu wax wax ji gën a wóor mooy bu dee ku jàng na xam ne li si bi fexal la li si bi fexal mooy baat boo xam ne day firi li fexal di firi te nanguwul la fexal nangu amin yàlla na nga nangu ñaan daa yu wax nag istaji rekk jooju wax moo wóor wala yu aminu du wax amin al maamoom maamoom xaafal imaam yi ci gannaaw ilimaan fil jëhriyati ci jullit biral illaa isa samiha ndare ndem dégg na xiraataxoo njàngam ma yow sa ilimaan bi dee biral waaye danga nga tëx mbaa nga sori ba déggoo ko bul jéem a tolloole amin ji soo déggee daal moom mu wax wala daalin nga wax rek amin waaye bu fekkee déggoo ko bul ko jéem a tolloole wal xunuut ak xunuut fi soppi ci suba faqat dong wax na faraax yi ci gannaaw noppi lil xiraatu ci njàng ma fi rakkaatu ci ràkk ba at taaneel koy aju ñaareel xam na da ko xëcc njëkkuru ko siran ci yelu xunuut bu dee ci fiqu Maalik du bis ba képp lañ ko sopp soppi ñu ko ci geneen te it rakkam ñaareel ba lañ ko soppee te it rakkam ñaareel ba boo jàngee faati ak saar ba noppi te it bala nga aru boole ci te nga yelu ko boole ci yooyu ay sopp wala tuhu ak baatam ba nga defe ko baat bi ñu la bëgg a nett li itam bañ ko defe beneen ba te loolu lu ñu sopp la waxoo moom nag mooy lii allahumma yow buur bi innaa naka nun nastainuka danañu sàkku sa ndimbal wa nastaxfiruka dañuy sàkku sa njëggal wa nu'minu dañuy gëm bi ko ci yow wa natawakkalu dañuy wàkkirlu alayka ci yow lee mu ca teg nag wa nuus nii dañuy tagg alayka ci yow alxayra yuuba kullahu léppam nashkuruka dañ la sant wala nakk furuka te dina weddi sa jekk di tàmbale was wanus nii yi ba ci wala nakk furuka mën nga koo tëb ndax wax ju gën a wër mooy bokkul ci nett li bi nga xam moom la ñu sukkandikoo boo waxee rek wana tawakkalu ci teg rek naaw jëlee war naaw te nuy toroxlu laka si ci yow nax laaw te jëpp dina jublu sa joj mooy bàyyi jëpp dina jublu sa joj wana turuk te nuy bàyyi man képp koo xam ne yàkk furuka dina la weddi suñu borom noo ngi sàkku sa ndimbal di sàkku sa njëgal di la gëm di wakkirlu ci yow di la toroxlul di sumb ci lépp lu bokkutoo lislaam di wàcc te bàyyi itam képp ku la weddi allahumma yow buur bi iyaaka yow rek naabud la ñuy jaamu wala ka ngir yow rek musalli la ñuy julli wa nasjudu te ñuy sujjoot wa ilayka jëm ci yow rek nasxan la ñuy dox wa naxfidu te ñuy gaaw narjoo danañu yaakaar raxmataka sa yërmaane ana xaafu tani ragal xadaabaka sa mbugal ak jëddëga aji tar inna xadaabaka naka sa mbugal mulxiqun aji yëg la aji joti la bil kaafirina ci way weddi ñu yàlla suñu borom yow dong la ñuy jaamu yow rek la ñuy julil di la di gaawantu jëm ci topp sa ndigal di yaakaar sa yërmaane di ragal sa mbugal bu metti gi nga xam ne ñu la weddi rek ñoo ko yeeyoo loolu mooy xunuut waddu xaaw ak ñaan bax da tashahudi ci gannaaw taay ja ak saani ja bu ne taaya ñaareel rek mooy taaya nga nar a sëlmale ndax léegi julli am yéenti taaya mbaa yett su ko defee nag bu taaya jeexee bala ngaa sëlmal naa boo jullee ci yonante bi nga ñaan njëkk ñaan googu sopp nañ ko su fekkee mënoo ko li nga bëgg a wax mënoo ko ci arab mën nga wax ci salaam ñu bopp wa taqdimu yadayhi ak jiital yaari loxoom xiina yëf yi ci waxtu ci waxtu dana rot bi himaa ci ñoom ñaar li sujoor jëm ci sujoor ba xalaaru ko ba tey ci ñaar ba maanaam boo xawee koo ci kaw bàyyi koo ci taxawaay ba jëm si ci sujjóot bi dañoo bëgg say loxo jiitu si ba rëppeelu nga door a sukk say tànk nga door a sukk say bëtiwoom bëtiwoom yu mujj loxo yi rëppeelu jiitu ko wa taqdiimu rukbatayhi ak jiital yaari bëtiwoom ya xalaa yadayhi ci yaari loxoom xindal xiyaami fa jóg ga boo ne yëkk di jóg nag jëm ca kaw nag dañoo bëgg moom bëtiwoom yi njëkk jóg ba noppi nag loxo yi mujj jóg xam ne kon boo bàyyi koo ci kaw di bët yooyu mujj sukk boo jóg nag moom na bët yooyu njëkk jóg loxo yi moom mujj a jóg wa xaqudul xin ak fas baaraamu sanglañ ba wala bin sari ak ndombur ba mooy bi sës ci moom wala wusta ak baaraamu diggutu ba ñu di ci loxo ba aliw na bay ndeyjoor maat dan mbir muy aji tàllal as sabaaba te baaraamu sànnikaay ba wala ibhaama ak baaraamu tër moom fi tashahudee ni ci yaari taaye wala xarniku te mu yëngal as sabaaba te baaraamu sànnikaay ba nee na dañoo sopp booy taaya sa loxob ndeyjoor ñetti baaraam yi nga xam ne mooy bu sangalañ bi ak bu sës ci moom ak ba ci saan mi bu diggutu nga bank leen ñaari ci des yu baaraamu sànnikaay bi ak baaraamu day wi nga tàllal leen su ko defee nga boole ci yëngal nag baaraamu sànnikaay bi waaye ataqit te dana fas bi ishaarati ci njuga bi haa ci baaraam boobu ne annaha naka moom mitradatun ab dàqukaay la seytaane ñeel seytaane am na wax ne sa baaraam boobu boo nekk sat moom baaraam boobu ci boo dee julli am na ñett la woy door seytaane dañoo wute ci ba xam da ko yëngal am la ko yëngal waaye fiq maali wax ci gën a wër mooy da koy yëngal moom da nga koy yëngal ñu bàyyi ko ndeyjoor jëm càmmooñ dama ko dikk ba kera ngay sëlmal waaye bu surtout dana tàllal al yusra loxob càmmooñ ba loxob càmmooñ moom ay baaraamam doo ca banque benn koy teg ci sa lupp càmmoñ rek moom loxo càmmoñ bi te bañ caa bank benn baaraam bañ cee yëngal benn wa wax doom yooyu ak teg yaari loxo ya ala rukk ba tey ñaari bëti woom ya fi rukkoo ci rukkoo ba boo xasee sëgg rek ba say loxo jege say bëti woom rek am na waaye nag nga jàpp say bëti bu dëgër nag loolu nga neel la yaari loxo ya xaddoo ubbi nay fa tolloog ñaari noppam aw qurbahuma wala fa jegeeg ñoom ñaar fi sujjóori ci sujjóot ba dama bëgg boo nee boo sëggee di sujjóot say loxo ñëw ba tolloog say nopp mbaa mu jege say nopp ndax nga mën faa yàgg te sa te sab jë du jekki yëkkati ko ko dalaat waaw ah, ndax boo saralee say loxo ci gannaaw rek mën naa am ni ko jekk ni ko bëgg a jekkoo kenn la nga fa soxla doo ko mën wa mu jaafaatul rajuli ak soreeleeg góor fi sujjóot ci sujjóot ba bay na rukk ba tey diggante yaari bati woom ya wa bay na mir faq yi ak diggante yaari cancoom ya wa jàmba yi ak yaari wetam ya wa bay na fax yu day ak diggante yaari luppam loolu risaala waxoon na ko maanaam góor bu dee julli nga bëgg mu yàng nga xam ne bu sëggee bay sujjóot bët yoom yi de solanteeg bi conce yi solanteeg yi lupp itam noonu daal day yàng rek bu dee jigéen moom ñu sopp mu lem bañ a yàng cër yi waaye bu dee góor moom ñu sopp hmm, muy sorale ay cëram loolu ngëneel la wa takbiru sopp nañu kàbbar xinda shuroo fa tàmbali ba fii af xaali salaati ci jëfi julli gi illaa fii takbirati xiyaami na raj kàbbarub jóg ba minis na tey ni bàyyi ko ci ñaari rakka fa innahu naka moom yu kabbiruha dana ko kàbbar bax damaa yastawi ci gannaaw ba dana yemoo xaa iman mbir mi aju taxaw dañoo sopp boo dee julli ngay boole jëf gi ak waxaale gi allahu akbar léegi boo tàmbalee sëgg rek tàmbalee wax allahu akbar boo tàmbalee sikki rek tàmbalee wax allahu akbar looy def rek boole jëf gi wax gi allahu akbar am des nag boo amee ñaari rakk jóg jëm ci rakkam ñetteel moom bëgg nañ boo tàmbalee jóg nga ba a wax dara bàyyi ba taxaw jom door wax nag allahu akbar wa tawarruku ak pooju fil juloo seen ci ñaari jataay moo xam taay bu njëkk la moo xam taay bu ñaareel la am na noo xam ne sopp nga toogi ko sa njëkkikaay day àgg suuf dina ko wax léegi sax moo tax boole ci ba bay na sajdatayni ak diggante ñaari sujjóot ñi maanaam boo toogee diggante ñaari sujjóot mbaa nga toog di taaye ak taay ju mën doon am na toogin woo xam ne sopp nañ ko